ñu gis euh, poste yi si bëri yoo xamante ne mën nañ ne appel ak candidature bi mu doon wax maanaam dafa mel ku ko wàcc kenn xamul xew si diggante bi. waaw da ngay utiliser benn mm. baat. Ah. sa benn naataango laaj na ma ko. Mm-hmm. loo ci xam ma ne ko li ma ci xam mooy la Jamra xam. Mm-hmm. depuis février 1983 c'est-à-dire 41 ans de combat et de réalisation concrète. Mm-hmm. ndax depuis lor ñun xamuñu leneen ba ñu jëkkee song formation yi li tax ñu am ndam ci ñoom. gagné procès bi. sorti d'une fermeture de leur siège satanique. qui se trouve derrière l'Assemblée nationale lan moko waral xex muy dox. xex muy dox motax ba fi Abdou Diouf jógee ablaye Wade ñew ñu daldi di euh, gis drogue bi. dégâts yi muy def ci dëkk bi. di su lo xalé yi di tassé yi di yok insécurité bi. de déstabiliser l'économie nationale à cause du recyclage de l'argent sale. Mm -hmm. c'est pas un projet de loi de l'État pour dof bu melni akenaton bi nan naan Ablaye Wade ko créer ah, ah, c'est une ah, pro ma ñëw c'est une <laughs> proposition de loi c'est une proposition de loi mm-hmm. individuelle d'un député qui s'appelle Abdoulaye Gueye mm-hmm. fondateur de Jamra mm-hmm. koku xex muy dox motax ñu criminaliser ko légui dotul ay 3 mois ki six mois 10 ans la assorti d'une amende qui fait le triple de la valeur de la ressource wa fofu nga ne na de parenthèse ci akenaton alors mom luñ ko ak mom man xawmako te yàlla bu moko xam xawmako te yàlla bu moko xam. ko xamne ko xamne yow ma sawu gis foo ma mos gis ñu xana ben photo. mu làqatu ci ginnaaw photo bi lâchement yore smartphone am di fen di yàq ay deru gor. di xass xali généraux yi. amna xali général bu mu ne euh nafiq la. parce que tremblement de terre ba amone Maroc la xawmo ma Turquie mu yoni fa xali di len dimbali alors que ci deng cité religieuse inondation ba ngay takkarnaase. Euh, ku bon la ñàkk orma ñàkk teggin am na benn xalifa général bu waxoon ñu def pétition pour eggali euh, ju euh, travaux juma Tivaouane mm-hmm. nee na kooku dafa détourné xaalis bi mm-hmm. am na beneen xalifa général bu mu ne tuxkati yàmbaa la mm-hmm. te day wër di ëmbal taalibe jigéen yi am na beneen kilifa bu mu ne c'est l'imam des góor jigéen kon ku ñaawee làmmiñ noonu mën a sos mën a fenee noonu nga naan ma ndax xam naa ko lu ma koy doy xam man kay boo gisee may bu ma boo gisee bu ma waxee. Mhm. jëm ci moom rek. Mhm. ay fenam lay dindi. Mhm. parce que xam nga ñu bari day def dafa y a son terrorisme verbal la te puis sax un peu lâche parce que moom wax naa la ko sànq ni ngay gisee d'autres euh, activistes ñuy wax nga di leen gis gis seen expression visage ay vidéo nga di leen gis moom wax ma benn yoon boo ma si gis vidéo bu Akhenaton amul. benn photo daal lay jël làqatu ci ginnaaw di lay di fen ak di mhm. par exemple moi na jóg ne Ablaye Wade daf ma joxoon logement de fonction quand j'étais président de conseil d'administration mhm. et que régime Ablaye Wade je refuse toujours de rendre euh, ce logement de fonction mhm. et le danger chez lui il a embarqué beaucoup de jeunes dans ses mensonges et ses médisances le danger mooy buy fen daf koy codifier joxe ay références ay dates ay adresses par exemple man pour affaire logement de fonction bobo. dafa né logement de fonction baa ngi encore ci Ngor virage ci rond point ba ci wetu station sel bi xol boobu précision ba paré da né naka weddi naka weddi maa ngi koy wat pour la énième fois chef d'état yi fi jaar yépp Abdou Diouf ba ci Macky Sall en passant par Ablaye Wade amu ci kenn parce que ci média la la kon ñu ngi koy dégg mhm. démentir amu ci kenn je dis bien kenn kuma mësa jox waxuma le logement de fonction sax waaye ngunu ginaar poulailler mosuñ ma ko jox kon xam nga fen nga kon fenam yëpp noonu la koy construire il les construit en mettant des dates des références pour avec une volonté satanique yàq der ak tooñ alors bu ko defee ñun notre seul tort te xam moom moo xam lu tax mu metti ko mooy drogue bi ni mu lëmbee woon bi yàq xale yi tas ay sëy yokk insécurité bi ndax ku àndul ak sa sago il xamee mhm. déstabiliser l'économie nationale à cause du recyclage de l'argent sale. Mhm. Jamra mo ce c'est pas l'État mhm. D'ailleurs, tous les éléments ñu war défendre l'Assemblée nationale. mais notre statut d'ONG ne nous permettait pas de nous assemblée. il a fallu créer sur les flancs de Jamra un parti politique qui s'appelle le RDS Face à lañu face assemblée. les députés majorité opposition confondue daal di voté la loi 2007 31 mhm. le 30 novembre 2007 qui criminalise désormais ubbil say bu mhm. le yamba local mhm. qui criminalise le cannabis bi Mali de criminaliser l'hôpital bi nigeria criminaliser le brand bi Ghana criminaliser surtout euh, euh, euh, cocaïne bi nga que les kilifa qui yu bari la ñuy ba du am aucune distinction du point de vue des valeurs. am na si kenn ku siiw ku nekk alors mhm. yooyu yëpp nag c' est criminalisé. Mhm. ça veut dire maintenant muy yamba beeg l'hôpital et cetera c' est grâce à Jamra donc je suis obligé de de tirer la couverture vers soi ndax wax ji leer. Mhm. grâce à Jamra léegi peine yi ce n'est plus ay 6 mois qui 3 mois dégg nga ko yow Akhenaton kuñ ci jàpp moo xam yaay ñëw di ko dugal wala un intermédiaire wala lu mën a doon. 10 ans la ferme assorti d'une amende qui fait le triple de la valeur de la drogue saisie. ba loolu amee ba léegi nag bés bu né mu saago mhm. ay tukkati yom mo ngeen benen dofam ci talibé mi da ne dégg naa sax waa Jamra dañu fam nefere mbaam jaxassé ko yamba diko ko d'accord d' <laughs> yamba lañu ay noxor lañu ay dëmm lañu mhm. wayé yamba bi dal ko fi dugal. ñu ah. fëgg 10 ans que ce mhm. soit clair. d' accord boo ñëwoo Jamra nday wayé on revient pas là-dessus. on revient pas là-dessus également sur les récépissés des góor que Jamra a dénoncé combattu et bloqué parce que c'est ko paradoxal nga am l'article 319 ba paré di autoriser ay góor jigéen ñu am association. Mhm. ñun mën nañ comprendre parti politique. parce que euh, récépissé carte d'identité, une rek la. Mhm. yow ni nga mané ni nga carte d'identité, carte mhm. avec adresse nom prénom euh, nest ce pas date de naissance et tout ça. parti politique aussi. Euh, pour moi, am un cachet légal. day am récépissé. alors récépissé aussi pour les syndicats wala y tamit une corporation bi pix ak corée pour défendre les intérêts matériels et moraux des des acteurs de de de la presse. a am récépissé de reconnaissance mais luy ndeyu kuréelu borom ñaari tur ñu am récépissé. ubbil say nopp ak Akhenaton Jamra ko xeex ba ñu bloqué ko. 16 récépissés. am na 16 yu rëcc. tout le reste les 35 qui restent en instance de validation. Jamra ko xeex. à nos risques et périls ba ñu bloqué ko. voilà kon ñaari yaa ma doon laaj lu ñu jotee. Mm-hmm. ñaar yooyu moo ko teree nelaw. Mm-hmm yamba bi criminaliser. criminalisé dootul 6 mois 10 ans la la moo hein? intérim la li ah. li ngay def ni moko ko arrangé ah mu nga li li li ko ci wax rek ku wax feñ et enfin góor d'accord léegi bi mu demee ba amatul argument nag wax naa la ko mm-hmm. dama am logement de fonction que je refuse de rendre wax naa la léegi mm-hmm. et je mets au défi tous les régimes mm-hmm. de prouver que mës am poulailler ngounou ganar sax waxatuma laaj logement de fonction Bon, il argument xam nga parce qu'elle a déjà purgé sa peine Durant ben weeri kaso muy rangu mhm. ba mu a ba affaire langu bi <laughs> ko a mhm. plainte pour diffamation injure publique